li ci yéenekaay yi ak Abdoulaye Bob yegg si nañ ci fas yéene ko doo rek lu gën a fës ci xetu yéenekaay yi ndorteel geek Walf Quotidien yéenekaay bi jiitu ca fajar mu ngi ñu dégtal coalition Benno Bokk Yaakaar am nañu fa ne di dal ci njiitu réew mi euh, Macky Sall euh, gannaaw bi nga xamante ne njiitu réew ma woon Macky Sall sori na réew mi te euh, jegeetul xolu ñenn ci ñëwaa Benno Bokk Yaakaar ku demee ni Arona Coumba Ndoffène Diouf jàpp ne lu yàqu ci réew mi du kenn ku dul njiitu réew ma woon di Macky Sall yekk na lu xeme moom Arona Coumba Ndoffène Diouf ne am na ci lu bari yoo xamante dañ ko war a topp njiitu réew ma woon di euh, Macky Sall warta demee noonu bàyyi réew mu Sénégal ci euh, anam yu euh, gënut mu ngi ci yéen a kabi di Walf Quotidien yéen a kabi di l'évidence xëy duñu dégtal dette fiscale gi tegu ci ndoddu des médias bu Bougane Gueye Dany Bougane Gueye Dany tamit xam ne jafe-jafe yamu doon dundu ci wàllu dette fiscale ci nguurug Macky Sall ga woon bu ñu deful ndànk jafe-jafe yu ko raw la bëgg a dund ci nguur nguurug Bassirou Diomaye Faye dossier euh, des médias googee daanaka tere ji na ci wàllub yoon euh, soxal li nga xamante mooy entreprise bu de médias euh, moom Bougane Gueye Dany jàpp ne milliards yaay tegu ci ay loxoom bokk na ci du ñaari milliards dong moo mun gàkkal deram mu ngi ci yéene kaabi di l'évidence direct news xëy ñu dégtal congo gi nga xamante ne Ousmane Sonko def na ko ci presse bi moom premier ministre dondu metti lool Bougane Gueye ba tax na keroog bu mu jullee ca juma ji naan tabaski bi bugaan gi dani eh, yekk lu mel ne xeme nguruk Basiru Jomaay Fay ak Ousmane Sonko eh, bugaan gi dani jàpp ne saytu na lu toll ci eh, junni milliard ci loo xamante ne amul benn jafe-jafe ci wàllu redressement fiscal ak yeneen ak yeneen sàkku na nag ci Ousmane Sonko ak ay ñoñam ñu fexe ba jublu ci soxlay askan wi maanaam lay suqali koomu Sénégal ak li fi jëlee ndool ci mim réew mooy li jàmp ci jamono ji moo gën wax ju bari ji bu ñu sukkandikoo ci bugaan Guèye Dany jàpp ne waxtu ji du waxtu teesanteeg yeneen ak yeneen waxtu liggéey la jëfa des Bougane Guèye Dany moo ni waxee yéen a kii waa Grand Place xëy taataan ay kaddu Bougane Guèye Dany jiital euh, des médias mi xam le ne doon sàcc moo ko génnal doon fenkat euh, gu ñu certifié goo xamante ne yoon xam na ne fenkat nga loolee du ngéneel Bougane Guèye Dany moo ni waxee dette fiscale geek euh, ca euh, tribunal fa mbaxana doone benn jàpp ne daloon dadoon dajoon na lu métte métti ca nguuruk Macky Sall mm-hmm. te yooyu lay jafe-jafe mun na ko dajaat ci euh, nguuruk Bassirou Diomaye Faye Bougane Gueye Dany ma ñu ne kàngam la ci wàllu démocratie bu Sénégal ma ngay fàttali sax euh, jamono joo xamante ne Ousmane Sonko jotoon na fësal ci page Facebook am ci juróom-ñeenti fan ci weeru octobre 2021 doon dooleel Bougane Gueye Dany doon ko itamit taxawu ci nanguuruk Macky Sall jotoon na Bougane Gueye Dany ci bor maanaam lempo gu ci ñaari milliards eh, te Ousmane Sonko gisoon ne eh, jaarul ci yoon ba tax na mu doon ko ñaxtu eh, ci googule page Facebook am mu ngi ci yéen a bi di waa Grand Place yéen a kii bi di ne ñaxtu ya jibee ca kaso camp pénal jur na waxtaan tey fitna gak jàmmarloo ga doxoon ci diggante ñay watu karange kaso googule ak ñenn ñafa ca caabi féete ginnaaw administration pénitentiaire jàpp ne dañ saytu chambre huit ngir xool drogue gañ fa làq loolee jur fa fitna ba ñenn ca ñañ fa jot tegloxo euh, teg génn seen matelas di ko taal administration pénitentiaire jàpp ne ci googule bërëb amul ku fa jot a ñàkk bakkanam amul ku fa jële gaañu gaañu waaye nag daañu def seen liggéey daañu amal enquête gu yaatu ca googule kasob camp pénal rawatina la fa dugal euh, caméra bak euh, tamit li nga xamante ne mooy téléphone ba jot a filmer mbir ya yéen kabi di le quotidien mu ngi ñuy dégtal waaju koomu Sénégal ak fu mu dem ëllëg FMI moom am na ci xel mu dal jàpp ne taux de croissance bu Sénégal ci atum 2025 gi ñuy waaj a euh, séentu maanaam gi waaj a nuyoo si Sénégal mun naa yegg ba am croissance gu toll ci 10 virgule 1 pour cent lu aju ci koomu Sénégal sax euh, FMI dina dugal ci loxoom euh, ci weeru sulet gi ñu jëm dina jébbal Sénégal lu toll ci ñaari téeméeri milliards ak luy toftal fanweer xobet xobet lay doon mu ngi ci yéen a kaab yi di le quotidien yéen kaa bi di Le Soleil fa la desandi ci wàllu croissance économique au Sénégal budget beeg fu mu toll dette beeg euh, bor geeg wàllu subvention note yi nga xam moom la FMI notel euh, Sénégal mi mu ne mun nañoo yegg ba ci croissance gu toll ci dix dix virgule un pour cent ci atum euh, deux mille vingt cinq gi ñu jëm mu soxal Afrique subsaharienne mu ngi ci yéen kaa bi di Le Soleil yéen kaa ba ñu dégtal nganuk président Bassirou Diomaye Faye foofee ca France dina diisoog Emmanuel Macron Macron yéen cabinet gannaaw Afrique nganam bu njëkk ca Europe moom jiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye war a fa waxtaane wàllu coopération France ak Sénégal moom la yéen cabinet di l'info xëye Bassirou Diomaye Faye dina jëmmal ak dëgëral relation diggante Sénégal ak France dina bokk ci googu lépp ngan ci découpe Emmanuel Macron yéen cabinet du Sud Quotidien xëy duñu dégtal euh, ñi nga xamante ñoo fi woon ca nguuruk Macky ga woon te ñu jox leen ay woto nguur gi engagement de fonction ak passeport diplomatique ak yeneen ak yeneen waxtu a jot nag ñu war a delloo li ni mel waaye am ñu ñu lànk ba rasu ne du ñu delloo lañ leen denkoon yenn cabinet mbir la bu ñu war a lijjante ndax bari na ñoo xamante ne saay bu seen nguur jeexee lañ leen dénkoon pour ñu delloo ko rek jafe-jafe lay doon mu ngi ci yenn cabinet di euh, Sud Quotidien jafe-jafe am ca Medina Gounass euh, jàkkaarloo jàmmarloo gafa am fitna ak jàppante ga am tax na gi sol na fas bu ñu sukkandikoo ci jawriñ gi ñu dénk wàllu kaaraange bi réew mi teg na tànkam ca Medina Gunas jot nañ fa teg loxo bokk na ci lim bu takku ci ay doomi adama waaye nag jot nañ fa tegaale loxo ay ngannaay yoo xamante ne fekk nañ ko fa ay ngannaayu xeexukaay mu ngi ci yéen a bi di eh, las ci xëtam bu njëkk yéen a bi di stade mu ngi ñuy dégtal eh, Europa eh, America Copa America lañ ko duppee bokk na ci 48e édition bi door nañ ko waaye nag la ca gën ci ay équipe yoo xam leen fay séntu Argentine ak Canada waaye nag Argentine ak Mexique bu yoneen Mexique Argentine ak Brésil bu Vinicius yéen yenn kaabi ñaari kàngaamu football yoo xamante seen équipe. bokk na ci googule Copa America Brésil moom ñu ngi koy séentoog Costa Rica niki talaata gi ñu jëm eh, ba Argentine jot na wone eh, boppam yéen bi gis ne ci googule Copa America eh, ñaari équipe yi le ñooy favori muy Argentine ak Brésil bu Vinicius yem fu ñu jeexale xetu yéen kaay yi mbokk yi yem fu ñu jeexale xetu yéen kaay yeeg daanaka xibaaru suba si dañ ci dikkat na mu gën a yaatoo jaajëfal Adama. kenn dootu leen ko présenté ndax képp ku ma sa jëflanteeg moom am nga ci satisfaction à 100 pour cent Maulana Cheikh nag gannaaw ba mu leen andilee si faawu jooni jooni mbokk yi Cheikh Ousmane Touré andi leen café si faawu jooni jooni di faj 70 maladies ci seen yaram ñu mën cee jàpp hémorroïde bu feeñ wala bu nëbbu tension wala ulcère kuli wala ndoxu siti diabète wala impuissance sexuelle di góor gu néew kàttan day faj rhumatisme ak estomac nee naa la café si faawu jooni jooni bii daal efficace na ndax lu tolloog sax Ousmane Touré dalee na andil garab gu bees tàq gu ñuy tuddee céréale magique bu sifaawu jooni jooni ah mbokk yi fexe leen ñam céréale magique sifaawu jooni jooni bi nag ndax li nekk ci biir nee naa la ñam xam la yow mii di góor day renforcer say miskil yokk sa kàttan may la doole boo dee jigéen mu yokk sa ay ans jox la forme ba nga xam ne foo romb tarkal la rek ngay dégg kon yow mi bëgg a yokk sa ay ans bëgg am forme ba nga xam ne foo romb ñëpp xool la xoolaat la gaawal gaaw jël ci céréale magique ku Cheikh Ousmane Ousmane Touré gii nee naa la céréale magique bi nag ñi ko jote utiliser ñëpp ci gis résultat ndax efficacité bi nga xamante ne bii moo nekk ci biir ah Ousmane Touré nag mi ngi fii ci Tivaouane Pël Kër Massar Apix numéro téléphone am mooy 77 767 57 11 wala 70 485 12 18